mun nañ ne ki nga xam ni moo daal di Mimi Touré nekkoon fi li nga xam ni moo di ex premier ministre waaye tamit faro fi nga xam ni moo di benn Bokk Yaakaar ak fii di APR ci li nga xam ni moo di président bu Macky sàll ci parti boobu bile waaye jamono guñ toll nii moom Mimi mun nañ ne ku daal di taxaw jàmbaarloo ak lenn ci li nga xam ni moo di gouvernement gouvernement bu Macky Sall bile ngir kat di fexe la tout jàmbaarloo ak moom wane ni boppam bu baax a baax faratul benn yoon ci bile coalition di APR benn Bokk Yaakaar mbokk yi ñu ngi sàkk bu baax ngeen abonné aimé partager commentaire laaj ndax saa su ne loolu dina nekk li nga xam ni luñ daal di dimbali la moom Mimi Touré nag ci loolee àdduna jëmee ci li nga xam ni moo di lenn li nga xam ni gis nañu ab dialogue bi nga xam ni di dialogue sax waaye nag dialogue politique rek la ngir kat fagagal ak kenn ki nga xam ni moo di opposition bi nga xam ni chef de moo tere nelaw jamono gi ñu waxee ak yéen président de la république bi lee moom Macky Sall waaye nag chef de l' opposition bi du kenn ku Ousmane Sonko ak lenn ci nga xam ne ay tenor politique lañ nekk ci mim réew di Sénégal waaye la ñu gis ni moom la pré moom Macky Sall pré na pour fagagal bu baax a baax ci boobu fexe bu baax ngir kat daal di jàppa jàppale baax a baax ki nga xam ni moo di ba ñu tegee ci seen ndoddu lenn ci li bu baax a baax lenn ci yàqoon a baax ngir kat ñoom même njiit réew mi daal di sàkk woon ci sénégalais yi ngir kat ñu topp ñi nga xam ni ñoo di Karim Meïssa Wade ci alal bi nga xam ne lu bool na ko loolee sax dañuy taxaw déglu kàddu yi nga xam ni moom Mimi Touré daal na ko yëkkati jëmee ko ci ki nga xam ni moo di président de la république ak jaay doole dictature bi nga xam ni saa su ne moom lay taxawee di ko jëm ci nga xam ne moo di réewu Sénégal. Nous avons euh, eu des échos par la presse des premières conclusions du pseudo-dialogue du président Macky Sall, euh, qui, à mon avis, n'a convoqué euh, ce dialogue pour faire valider, légitimer, je dirais même, sa candidature. Et en même temps, il souhaite se choisir euh, lui-même ses candidats. et il souhaite les candidats gênants. Nous avons euh, compris du procès de Karim euh, qui a été condamné, qui a fait de la prison et euh, qui doit aux contribuables Mais à la fin de ce dialogue, ces 138 milliards seront effacés. Donc les Sénégalais qui cru les propos du président Macky Sall relatifs à la bonne gouvernance qu'il souhaitait promouvoir euh, en tireront toutes les conséquences. Il serait décidé également euh, de modifier les articles L28 et L29 euh, du code électoral pour que les candidats qui n'étaient pas éligibles euh, puissent l'être, mais avec une précision euh, très importante qui dit que ces candidats devront d'abord avoir purgé leur peine. Cet article, cette modification ne vise que Ousmane Sonko, qui est poursuivi euh, voilà, par la justice, euh, euh, par euh, d'abord des procès euh, en diffamation bidon, un autre procès où le juge lui-même voilà, a rejeté les accusations de viol et de menace de mort et pourtant il est poursuivi. Donc ce dialogue-là, c'est vraiment le dialogue de l'injustice. Ce qu'il ressort, c'est cela. Euh, c'est euh, voilà, ce qui doit, celui qui doit 138 milliards Karim Wade en l'occurrence lui pourra être candidat mais Ousmane Sonko qui est poursuivi sur des pour des faits à motivation politique lui ne pourra pas y participer euh, en attendant d'ailleurs que certainement le président Macky Sall s'intéresse à d'autres candidats gênants euh, les démocrates sénégalais les Sénégalais épris de justice et de paix doivent se mobiliser pour empêcher justement cette régression euh, démocratique à laquelle on, a, on assiste depuis quelque temps et à cette cette injustice euh, que le président de la République exerce depuis quelque temps euh, waaw li ñu jàngat ci li nga xam ne euh, mooy jaloogu président Macky sàll bi mooy euh, nañu ko waxee woon la tax mu woote dialogue woowu parce que defe naa ne waxtaan ba noppi soog a soog koo wootee mooy na am jàllale ci xelu sénégalais yi ne war naa mën a wuti troisième mandat te ñëpp xam nañ ne yoon mayu ko ko kàddoom it Euh, jiitu woon na ko mayu ko ko euh, ca jaloog ba nag dafa mel ni euh, dañu jàpp ne procès wu Karim Wade dañu koy xoolaat bu ko defee moom 138 milliards yi nga xam ne moom la yoreloon Sénégalais yi ñu dal di ko effacé dootul yoreel Sénégalais yi dara ba noppi doon candidat dafa mel ni dañu jàpp ne ne danañu xoolaat code électoral ba ba ñi nga xam ne maanaam yoon daloon na seen kaw ba ñu defoon kaso. Euh, danañu mën a nekkaat ay candidats waaye nag lañu ñu indi mooy li jaaxal ñëpp mooy euh, dañu ne waaw mais foog nit ki tëdd ba pare kooku li tax ñu indi loolu benn nit a tax ñu indi ko mooy Ousmane Sonko bu ko defee euh, ci gàttal Karim Wade moom dana mën a bokk <laughs> moom mi nga xam ne moo ñu yore loon 138 milliards waaye Ousmane Sonko mi nga xam ne dañu ko toppee yoo xam ne yi ñëpp jàpp nañ ne politique la moom dañ koy seppi teg na le Euh, xam naa ne président Macky Sall bu paree ca moom nag dal di jàll nag ci yeneen candidats yi nga xam ne euh, jàpp na ne euh, vraiment lii nga xam ne lay wut muy troisième mandat xëy na mën nañ ko cee sonal lii nag moom ñi nga xam ne dañu gëm démocratie bëgg jàmm ci réew mi war nañ cee taxaw mobiliser bu ko defee suñu démocratie bañ a dellu ginnaaw foofu la ñu toll te vraiment xaaruñu woon loolu. Euh, muy ci jaloog bi ndax bu fekkee ne da ngay dialogue bëgg jàmm euh, bëgg politique bi delluwaat ca place am doo doo doo doo ut koy seppi ak koy ak ak ak koy bokkal euh, voilà kuy bokk ak ku ñuy seppi danoo waroon a fexe ba ñëpp bokk loolu mooy wax ci waaye dem nañu ba ut yoon woo xam ne dañ fay jaar ñii nga xam ne président Macky Sall bëgg nañu bokk danañu bokk ki nga xam ne bëgguñu bokk bu bokk moom muy Ousmane Sonko. te ñuy dem ba ca code électoral ba changé ko fa pour tere ko mu doon candidat bu président Macky Sall pare ci moom nag xëy na xam naa ne jàll ci yeneen i candidat opposition bi euh, loolu it kenn waru koo nangu démocrate yi war nañoo mobiliser wu euh, pour que euh, injustice boobu maanaam jóge ci réew mi ndax président Macky Sall vraiment ni mu taxawee mooy delloo suñu démocratie ginnaaw te loolu kenn waru koo nangu. tey jii mën na ne moom mi la di Mimi Touré kàddu yi la daal yëkkati xamal ko bu baax baax ki nga xam ne moo di njiit réew waaye xamee ko baax opinion nationale ak ak opinion internationale ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax kat ginnaaw mën nañ ne topp ki nga xam ni moo di Karim Wade lu wexoon xat la ci mim réew di Sénégal ndax kat Sénégal gi la yàkkoon nañ leen ci alal ngir kat topp bu baax a baax doomu Abdoulaye Wade bi la di Karim Meïssa Wade waaye nag ci loolee sax mën nañ ne ak ki nga xam ni moo di Khalifa Sall ci boobu jamono moom mi nga xam ni moo di président de la République ginnaaw bi mu defee ak dialogue foofee ci palais de la République nga xam ni ñoo di ay acteurs politiques mën nañ ne gis nañu mu ngi fexee la tout daal bu baax baal bu baax a baax ñooñu leen ñaar ñooñu di xalifa Sall ak ki nga xam ne moo di Karim Wade ci boobu jamono sax mën nañ ne ci la bëgg a fagagal ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko waaye nag lu mën na am ba am ñu ngi ñaan ci mim réew Sénégal jàmm yàgg fi sax fi wéy leen di abonné fi nga xam ni moo di Buzz Actu 221 ndax lu fi xibaar information jàngat ñu leen koy defal salaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.